Hmm. mën nañ cee tàmbalee hmm. bu ci bokk hmm. waaye moom lañ ko tàmbalee kon mën nañ cee tàmbalee kon ñu tàmbalee ci bismillah ci turu yàlla rek laa de tàmbalee bu dee bismillah abtadi ula wala bismillah ci turu yàlla rek la sama tàmbali gi di xamee bu dee bismillah ibtidaa i wala bismillah ci turu yàlla rek laa di jàngee wala bismillah ci turu yàlla la sama jàng gi di xamee lu mën a xew mbir mi daal moom turu yàlla ko jagoo arrahmaani borom ba di aji xewal xewal matale rahmaan li biñ ci dolleeg nuunara googu dafay tegtale baalaxaal subaa mooy tegtale kii xewal xewal goo xam ne dafay daj ñëpp du xam ku du xam ku du xam jullit du xam xéefar ki de xewlee noonu moo de raxmaanu képp koo xam muy jullit muy xéefar yàlla ko xewal xamam bi képp ku mu mën a doon mm-hmm. warsak ba muy dundee mm-hmm. muy jullit muy xéefar mm-hmm. yàlla wax xewal boobale kon kii xewlee noonu muy arrahman arrahim ka daaji xewle xewal gu sell xewal gu xam ne bu dikkee day sax dakk te dara dara ci tiis du ko rax ki koy joxe muy rahim ni ki waa àjjana seen xéwal yi mm. noon de firi la mm. ci tàmbali bi mm-hmm. yeneen i firi hinang ci mm. waaye dafa yaa mm-hmm. moo tax dégg yi yaatu kon ñu tàmbali fatiha mm-hmm. dañ ko wax fatihatul kitaab ndax moo tàmbali téere bi dañ ko dee wax itam ak sabon masaali yi hmm. mën naa am lim de juróom-ñaari aaya hmm. te kuy julli da ko jàng ay yoon hmm. loolu moo tax ñu tuddee ko ak sabon masaali yi mën naa am itam aaya bu nekk ci saar wi dafa tolloog subon la quraan yi subaa juróom-ñaari aaya yi boo leen jàngee ba mu jeex dangay mel ni jàng kaamil bi mm-hmm. mën naa am lu la tax ñu tuddee ko asabul masaani yi mm-hmm. mën naa am leneen moo tax mm-hmm. wax yi moom bëri nañ waaye ñaari yu doy nañ mu ne alhamdu mbooleem cant cant gum maana doon su fekkee al istixraaq lañ ciy déggee cant gum maana doon lillah aji sax la ñaa cant gu mu mën a doon mm-hmm. sama borom mooy ko ko xeyoo mm-hmm. te ca moom la dellu rek mm-hmm. moom ku ko sant cant yaa ngi dellu ci moom ku ngi dellu ci moom wala nga ne alhamdu cant ga su fekkee algi alhamdu la mooy cant gam santoon boppam ci asal lillah aji saxla ñaa sama borom xam du mooy assanaa bil jamil tagg bu rafet moo xam ki ngay tagg daf la defal dara mm-hmm. wala defalul la dara mm-hmm. waaye yaa ngi koy tagg tagg wu rafet mm-hmm. loolu mooy xam su fekkoon da ngaa tagg kenn nag ndég njëriñ lu mu la defal moo de sukkuru loolu moo leen xaajale su fekkee da ngaa tagg kenn nag ndég lu ne ci moom waaye dañ ko caa def mooy madu loolu yëpp moo leen xaajale moo tax alhamdulilahi la ñuy wax mm-hmm. ak matun nabi mm-hmm. rabbil alamina kii borom mbindeef yi mm-hmm. baatab rab xam na ay maana yépp man na fii mën nay firi ilaa mën nay firi muslih mën nay firi malik yépp nag yàlla ko doxal bindeef yi mooy seen yàlla mooy ki leen moom mooy jagal seen i rabbil aalamiin kii borom mbindeef yi hmm. lépp luñ bind rek yàlla ko doxal rëbbu hmm. waaw mooy yàlla moo ko moom moo jagal mbiram hmm. arrahmaani rahim léegi lañ ci génnee rek maliki yawmi diin kade buur ci bis yàlla mi nga xam ne bis moo ko buur bu ñu waxee limanil mulkul yawm kenn du wax man mm-hmm. kenn du wax diw sàngam mm-hmm. moom mooy tontu rek mm-hmm. ne lillahi alwahid alqahar xam na ñuy jàng malik mooy malik yawmi diin moo moom mbiri bis kon noonu lañ koy firee waaye sëriñ bi daf ñu daan wax ne jàgginu malik moo gañee malik maliku mooy koo moom daal rek maliku nga waaye maliku sang lay doon mm-hmm. te ñoom bokk mm-hmm. te itam loolu moo gën a déggoo mm-hmm. ak li ñuy jàng ci alquran walawul mulk yawma yunfaxu fi suur moo gën a déggoo ku malik yawmi diin beneen bi ci topp boo malik dafay laaj nga nattale alif bu ñu xasaf ci diggante miim ak laam gi boo ne malik nag du laaj nattale boobu le baat bi nag wax dëgg nga fekk ko mu àgg. Hmm. ak nga fekk ko dara maa ngi ji. Hmm. wax dëgg xamul. Hmm. waxte ñetti yëf la yoo xam ne. Malick gañee na ko Malick. ñu ko sëriñ bi waxaat danañu wax ne. mu ne Maliku boo ko jàngee. da am ñeenti xaraf. da am ñeent fukki xiw. boo ne Maliku nag. xëy na da nga am fanweeri xiw. ci wàllu maanaam Malik moo gañee. waaye xëy na ci wàllu tiyaabo it Maliku it. ñu noonu dégg yëpp ay melo yu màgg la mm-hmm. yoo xam ne jaam bi wax na ko ci borom bi mm-hmm. tabaraka wa xam mm-hmm. na ci yuñ ko war a wegee am na ci yuñ ko war a yaakaaree bu ko defee nag wegeel ak yaakaar nag dafay loo jaam suba doo yëg rek yaa ngi janoo ak moom nga jagleel ko gépp ak toroxlu jagleel ko itam dimbandikoo ko ci mboole mi mbir yi mm-hmm. ndax weg gi nga ko weg it nag laaj na nga toroxlul ko dëgg-dëgg mm-hmm. yaakaar gi nga ko yaakaar laaj na nga dimbandikoo ko ci mboole mbir yi mm-hmm. moo tax xëy bu doon ci waxi arab rek bu ñu indee li simi zahir iyaahu la ñuy wax waaye dañ naan iyaaka mel ni ñu ngi janoog moom rek ni mu teewee ci xel yi iyaaka yow dong yow yàlla dong naa buddu la ñooy jaamu mm-hmm. yow yàlla képp mm-hmm. yow la ñuy jaamu mm-hmm. ndax amul luy luy doon diina te du yaa ko tuddee diina te sa diina ji te nag sa diina ji rek ci la ñuy nekk yow rek daal la ñuy jaamu buñ demee bay def luñ santaane dañoo dàkk sa santaane mm-hmm. def ko ngir yow rek mm-hmm. buñ demee bay daw luñ xaaye mm-hmm. dañ koy daw ndég yaa ñu ko daw loo rek wa iyaaka yow dong nastaxeenu la ñuy dimbandikoo yow dong itam nag yow lañuy ñuy dimbandikoo ci suñuy mbir ndax lu mu manta dox bu dul moom it du sotti waaye lu mu mënta dox hmm. buy moom du tax hmm. kon lépp rek hmm. nañ ko ci def sukkandikoo waaye ida kaana awnullahi lil mar'i xaadiman tahayya lahu min kulli saabin muraaduhu wa illaa yakun awnun min allahi lil fata fa awwalu ma yasni alayhi ijtihaaduhu ndimbalal yàlla boo àndee moom doo yëg jafe ndax moom mii def hmm. jëfe ak moom hmm. waaye bu la bayee sa bopp hmm. doo man lenn ndax bu deful du sotti dañoo wax na nit buy jàng fatiha ba fii bu ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iinu borom daf naan haada bayni wa bayna habdi wali habdi ma saal jàmm bi de nangul na ma li faree na fi mu war a faree mm-hmm. léegi lu mu laajet dana ko ko jox mm-hmm. di def ci saaru yëpp nag ñaan la mm-hmm. mu ne ihdinaa yal na nga ñu gindi as siraata yoon al wu de aji jub yal na nga def ci suñu xol yi bëgg yoonu njub def ci suñu cër yi nangu jaa loolu yàlla rek moo ko man waaye keneen mënu ko mm-hmm. loolu lañuy dàqal yonent bi mm-hmm. ci lañ ne ko innaka la tahdi mm-hmm. man ahbabta keneen buy juble dafay digle ne lii ay njub lii du njub rek waaye daf ci xol yu bëgg njub nag daf cër yi nangu caa xaw loolu yàlla rek moo koy def ci jaam asiratul mustaqim mooy diinaay dëgg ji nga xam ni moo tax yàlla wàcce téeréem yi mm-hmm. moo tax yàlla wàcce yonentam yi mm-hmm. yoon wi jaam ñi war a xaw mm-hmm. yoon wi xawloo jaam ñi ba mu waral loolu mooy asiratul mustaqim ñu ngi lay ñaan nga teg ñu ci yoon woowule bëgguloo ñu ko kàttanal ñu ca lépp luñ ca yëngatu ñu sellal ko ndig sa jëmm rek ñu la ñu ngi lay ñaan loolu siraat alladina mm-hmm. yoonu ñi nga xam ne mm-hmm. anaamta xewal nga gindi mm-hmm. anaamta bil hidayati alayhim ci ñoom ñi nga xam ne xewal nga leen gindi leen yoon wi ñu tegee yal na ñu gindi ñu tegee ci yoon woowa na mm-hmm. nag alquran moo koy leeral mm-hmm. minan nabiina mm-hmm. wa siddiqiina wa suhadaai wa saalihiin ñooñu ñooy ñi nga xam ne anam allahu alayhim ñoon yoon wañ tegee xoon yal na ñu defal tawfiix ñu tegee ca ba bu ëllëgee ñu mën a ànd ñoom xayril maxduubi ñu dut ñañ sànj mooy ñañ mere mm-hmm. alayhim ci ñoom mm-hmm. ñi nga xam ne tëwal nga leen yoonu njub mm-hmm. te bokku ñoog ñiñ mere ñiñ mere dafa am ñu ne ñoo de yahuud yi ndax yonent bi noonu la firee aaye bi te itam alquran bëri na fu leen tudd xadab mm-hmm. lay wax ci ñoom mm-hmm. dégg nga wa xadiba alayhi mm-hmm. wa jaala minhum alxanaasira wa baawa bi xadabin ala xadab wa baawa bi xadabin min allah kon loolu dëxëral na le ñoom la am na kilifa yu mag itam ci borom xam-xam yi saaba yeeg taabiyoona yi loolu lañ ko firee teewulit nag xam ñu ne képp rek dugg na ca wala daalliin mm-hmm. du càggeen way réer mm-hmm. bu ñu xab yoonu ñi sànku mm-hmm. mooy nasaraan yi addallu min qablu wa addallu kasiran wa dallu an sawaa'i sabil képp ku dalal ne moom rek nag yàlla na musal lii mooy sooratul fatiha dañoo wax ne daanaka nusxa muxtasara la mhm. ci alquran mhm. lépp lu nekk ci alquran mhm. yëpp mu ngi ci saar wi alquran ay ilahiyaat mu ngi ci mooy lu jëm ci wàllu yàlla luy bëgg loo nit yàlla luy ragal loo nit yàlla luy yaakaar loo nit yàlla loolu moo ne ci bopp saar wi ci bi nga ne alhamdulillahi rabbil alamin ba ci ba ne arrahmanir rahim alquran affaire àllaaxira mm-hmm. mu ngi ci mm-hmm. loolu mooy maliki yawmi diin mm-hmm. alquran danay santaane topp santaane yi mm-hmm. bàyyi tere yi mm-hmm. tënku ci àtte yàlla yi mm-hmm. gërëm dogalam yi loolu mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alquran danay ñëw da indi sariya de wane nangam nii la wara a demee nangam nii la war a demee sariya bi lépp nag mu ngi ci asiratul mustaqim alquran danay waxtaane ñëwe yi ambiya yi ak saalihuuna yi ak tawaiful kufaar hmm. loolu moo dalee ci xayril maxdubi alayhim hmm. wala daalliin hmm. noonu daal la demee kon daanaka nusta muxtasara la téere bi kon bu ñu waxee ne boo ko jàngee mën naa xam nga tiyaaboy kaamil ndax aaya bu nekk ci moom subhanal quraan la tollool loolu moo tax ñu de ko wax asamal masaani loolu da ko mën a dégg su ko defee sëriñ bi bala ngay ñaan dama bëgg nga may mu wax nit ñi ay kàddu rek maanaam dama bëgg ngeen seede ne liggéey bi liggéeyu sëriñ bi la man kenn laa ci habidul xadra te moom mooy kilifaak xadra bi tey moom la ko yàlla def lépp luñ fay liggéey liggéeyam la ci wàllu googu liggéeyam la bu dul loolu fu mu jaar ak man ci wàllu xam-xam hmm. lu ma ci liggéey hmm. am na ci wàll waaw hmm. ah, lu ma ci liggéey moom am na ci wàll man bi may ñëw fii booba ci njàngam alquran laa nekk ba bisu tey bi may wax ak yéen mosumaay dem fenn ne fa fa jàngee ji waxuma nooraani waaye loolu ku sax mosuma koy def bi ma feeñee booba daara ji ñetti kilifa yi ma fekk mu nekk ci seen loxo hmm. mooy moom mii hmm. ak suma nijaay sëriñ Muxtaar hmm. ak suma nijaay lay dam ju boo ñoom ñoo fi nekkoon di jàngale ci diggante ñett ñooñu laa nekk ba li ma ci for ak lu muy tuuti tuuti wax dëgg ci ñoom la ko yàlla jaaxale subaana su ma dëggee ci loolu ne maa ngi liggéey lu xam ne xam-xam ma koy liggéey ngeen xam ne liggéey bi liggéeyam la su ko defee bëri na lu ma leen di wax ci xam-xam mm. su fekkee lu ma dégg la mm. ci ñoom rek laa ko déggee mm-hmm. dégg moo ko ci keneen mm-hmm. su dee lu ma gis ci téere mm. bëri na téere bu ma xam moom moo ma wan waaw na téere bu ma xam wax dëgg moom moo ma ko wan mm-hmm. jamono bi may jàng boo ma naa amoon ku may dimbale dama jëndal téere te xamoo lu ma jëndee téere mhm. boo ñoom ñoo ma daan dimbale mhm. dama jox téere yu may jàngee mhm. ngeen xamee ko noonu kon liggéey bi ñoom lay seen liggéey te liggéey bi loxoom a ngi ci biñ ko waxee moom moo jàpp bis bi indi na fi téere boo xam ne kër yu bari mën nga faa dem. ba gis koo xam. Hmm. Hmm. boo xam ne. Hmm. yu bëri mën nga faa dem. ba gis koo xam. li ma njëkk a njëkk a liir. ci téere boobu jógee ci moom. ci laa ko liiree. ngeen xamee ko noonu. li ma leen wax ne Fatiha. daanaka nusxa muxtasara la ci alquran. ci téere boobu mu jox ma. xabal ma ko ci laa ko gisee. kon ngeen xam ne liggéey bi liggéeyam la. nañ ko nañ sàkku mu ñaanal ñu. ñu ne itam ñi ñaanal ko mm-hmm. yàlla yàggal ko fi mm-hmm. yàggalee ko fi man mm-hmm. te itam mu sàmmal ko lépp lu mu ko dénk yal ko yàlla sàmmal lépp lu mu ko dénk te itam daal ñu ngi ko koy ñaanal kon sëriñ mën nga àggali kàddu yi lu xaw na man lay sama mbir maa ko mën a wax rek <laughs>